sama gars yi waaw sama gars yi waaw nice nice sant yàlla sant yàlla bu wér ah mes amis love ah mbër mi béyoon ngay ni de barki alxuraanu karim a ah, Baye la Ndiaye Kuy yëngal ñooy sa baay Alboury Alboury egsi nga egsi nga jaa ngeen jëfaay yàlla yàlla la jàmm wallaay ndeysaan ah wallaay ndeysaan jaajëf Alboury yàlla yàlla fay la jaarama jaajëf ah mes amis love combat bu baax bi daa lay wax de non le roi des arènes ça c'est le roi des arènes xam nga mbër buy voyagé ak V8 yombul ça c'est Modou Xarañ Lo le roi il est là neexul doo mbër bu ndaw nag laal ñetti 4-4 laal mini 4 solo laal ay supporter laal ay garde corps privé oh estaf waa estaf ay liggéey nag laay liggéey bi estaf koy def nag waaw laal say 4x4 ni laal say sécurité privée non mi nag du ay caaxaan nag lii yëpp roi daal du ndombal tànk daal du caaxaan daal ndombal tànk du caaxaan ah bu ma duggee Gambia nag fekk na sama xel day dem ci suma grand grand Babacar directeur Fadam waay mais Fadam Fadam Fadam roi bi caaxaanul le le roi lim dajale eh, eh. ah

Modou Xarañ loo ñëw na. waaw loolu la yàlla dogal. ñaa war a zar ñëw na. egg si na mbër mi egg si na. ñaar Modou Lo ñëw na. mbër mi egg si na Fadam. kii moo jëloon loolu war a zar Pikine. loolu la yàlla dogal. Matar Eumeu Sène day na woy ci lamb. dëgg la. Modou Lo ñëw na. dëgg la. loolu war a ñëw na. wallaay egg si na. mbër mi doo ngay dugg. na oto yëpp avancé mel na mbër bay dugg. Babis ñëwal. Papis ñëwal waaw. Hmm? na taat bi dugg waaw. l'arrivée de Modou Xarañ Lo du ay foo du ay caaxaan.